ñun duñu ay jaam ñun sëti Bamba lañu askan wi moo ñu gën a lépp Serigne Touba dafa xeexi woon pour que askan wi am seen liberté nekk maanaam ay serviteur de Muhammad sallallahu alayhi ñun tey ji dañoo nekk martyr tey bu ñu deewoon suba sax li ñu war a liggéeyal askan liggéey nañ ko ñun askan wi ñor ñun faaliwuñu Macky Sall li am solo mooy ay député lañu dañu taxaw dañu combattre pour que liberté bi nga xamante ne mooy liberté démocratie bi sax fi ndax Macky Sall moomu réew mi bàyyee moomu réew mi Antoine Diome moomu réew mi bàyyee moomu réew mi li ñu complot lépp waxoon naa leen ko nee naa woon dañ tëj wal fajiri dañ tëj seen TV dañu jàpp Ousmane Sonko loolu complot la boo xamante ne yëg naa ko xam naa ko fa ñu jëm nag du leen fa bàyyi ñu àgg fa faut que askan wi xam li xew mooy Ousmane Sonko siis bu topp ko ki ko topp mooy procureur si kaw ndigalul Macky Sall depuis démb ñoom ñoo baar Ousmane Sonko ni buñ agsi préfet wax ni nañu tiir ci kaw journaliste yi ginnaaw buñ ko ñaawloo joxe ndigal gendarme yi pour ñu kidnapper Ousmane Sonko pour yóbbu ko fi nga xamante ni mooy fi nga ko denc tey mais loolu du jàll tey du jàll ëllëg di raf di rafetlu taxawaayu suñu waajur suñu xarit muy Serigne Habib Sy bi nga xamante ni tey li waajuram taxaw muy Serigne Abdou Aziz Dabba taxawee na noonu ñun duñu ay ragal ku Serigne Touba di sa a